jomb na su maftiqaarihi topp ak aajowam kanaa ni ki nun ba tey yàlla aajowa jëm ci kenn mbaa lenn jomb na ci moom da nga ne woon boroomu doyul la ci boppam aajowul kenn mbaa lenn mooy la nga ne woon waxaayibul bi nafsihi kon nag yàlla aajowa kenn mbaa lenn jomb na ci moom taxat dudin aku limu da nga ne woon yàlla kenn rek la kon nag yàlla ñu koy lim naa benn ya naa ñaari yàlla ak ñetti yàlla ak ñeent loolu jomb na xajisin akuk lot xajisin moo dellu ca xudratun kàttan nga ne yàlla amee na man-man boo xam ne dara tawu ko kon yàlla tëli ci dara jomb na karaaxatin akuk sib sib mooy jëf ci kaw forcé ba dara rëcc ko rek am ba dara tombe rek am da nga noonu yàlla amee na iraadatu coobare boo xam ne lépp coobareem lay aw rek waaye forcé mbaa rëcc mbaa tombe amut kon nag karaaxatu koy firee sib ci wolof jomb na ci moom sama min ak tëx moo dellu ca samhun dégg mi nga ne yàlla amee na dégg yàlla ca moom kon yàlla amee tëx jomb na ci moom jëxlin ak réer da nga ne woon yàlla lépp la xam te lu ne mu xame ko na mu doone kon nag yàlla umpale dara dara mbaa luy nuroog xeetu umpale jomb na ci moom wa mawtin ak dee da nga ne woon yàlla amee na xayaatum dund kon yàlla dee dal ko jomb na ci moom waxaman ak gumba da nga ne woon yàlla amee na basar gis kon nag gumba jomb na ci moom suma bakkamin topp lu da nga ne woon yàlla amee na kalaamun wax kon nag lu jomb na ci moom wa kaw nuhu ak nekkam nga xaa gisan di aji lot aw asàmm wala muy aji tax aw kaarihan wala muy aji sib aw jaahilan wala muy aji réer aw ama wala muy aji gumba aw mayitan wala muy aji dee aw abkaman wala muy aji lu subhanahu sorilal naa ko lépp lu yellu ci moom nas aluhu dana nu ko ñaan bi fadlihi ci nganeelam gufraanahu njëggalam nga ba te juróom-yaari melo yee muy xajjisu karaahatu samam jaxlu mawtu xamaa bakkam juróom-yaar yooyu ba tey ku ci nekk rek aw melo la woo xam ne mënta beru faaw ci jëmm lay taq te jëmm jum taq nga wooye ko loola kon nag bu nekkee yaa juróom-ñaar day nekk fukk ak ñeent nga xam ne xajjusun aw melo la kam nekk ca moom moo doon xaajusun aji lot karaaxatun sit aw melo la kam nekk ca moom mooy doon kaarihun sama mun tax aw melo la kam nekk ca moom mooy nekk asammu aji tax jaxlun réer aw melo la kam nekk ca moom mooy doon jaahil mawtun dee aw melo la maanaam mbir la moo xam ne comme daal mooy tudd mayit xaman ak ngumba kum nekk ci moom mooy tudd ama bakam lu kum nekk ci moom mooy tudd abukam kon boo boole yaar juróom-ñaar mi fukk ak ñeent kon boo wàññee fukki ak ñeent nga boole ca juróom-benn yee te mooy yàlla bañaam ñu koy wax rek te amut ak mu dale fenn ak mu yem fenn ak mu yem wonteeg dara ci lim sàkk ak mu aajowa jëm ci kenn mbaa leen ak ñu koy lim naa ñaar ñett kon boo ko boolee kon ñaar fukk lay doon loolu mooy jomb ci yàlla wa annahu ak naka moom yàlla subhanahu sorelal naa ko lépp leelu ci moom laayo jibu du war a xale yi ci moom shay'un dara maalum man di doon walay sa yoo jabu te def ko waral bal li fi nekk kay fi'lu kulli mumkinin def mépp mindeef wattar ko ak bàyyi ga jaa sa dagan na fi xaq yi ci àqam fala tashukko bu leen sikki sàkka loolu nag moo des ci li nga war a gëm ci wàllu yàlla mooy nga gëm ne yàlla amul lenn lu ñu la ko war mënu koo ñàkk def wala nangam sañu koo def déedéet yàlla desul waral ci moom dara dara dara dara moom daal lépp loo xam ne nii mën naa am dañ koy bàyyi coobaral yàlla bu ko gënalee mu amal ko bu ko gënalee mu ñàkkal ko mu bañ a am rek waaye kenn du wax nangam daa war ci yàlla faaw mu def ko wala nangam yàlla sañu koo def déedéet kooku mooy li nga xam ne mooy jaayis ci wàllu yàlla jaayis mooy lu mën a am mën a ñàkk amal lu si ndaal la nga xam ne dal la tegtale na xàll wu jóodi ci amul yàlla fasul xoo mooy jëfam ja almoori bu jey aji biral xan tawxiid walis ak wéetal idi ngir kullu san xatin jëpp jëf dalilatun tegtal la wala aji tegtale la xalaa saanixiyaa ci aji jëfam ja li kulli mën ñeel képp koo xam ne taxaq la xelu na li nga xamal ne yàlla am na nag mooy li mu sàkk te mooy mindeef yi ndax mindeef yi moom xam nañ ne amul ñu seen bopp ndax ku amul doo mën a amal sa bopp ñàkkul nag koo xam ne moom moo leen amal ka leen amal nag mooy yàlla kenn ku nekk nag jëfam moo koy wane moo tax mu ne jëf ju nekk day tekkale ne am na aji jëf ndax lu sosul te amul lu ko sos mënta nekk alaatara ndax doo gis baxaratan neefarew gëleem tadullu naa mu ni tegtal xalal baa ci gëleem waxadaman xanaa gisoo ndëggu mu ni tegtal xalal masiir ci dox xanaa gisoo boo gisee neefarew gëleem xam ne moom gëleem am na te gëleem a fa jaar moo tax neefara am xanaa gisoo boo gisee fuñ dëgg ab tànk nga xam ne ndëggu am na te moo fa dëgg moo tax nga gis jeexit joojee da lay wan ne la ay jëf ju ne la mu jëf moo koy xamle moo koy tegtale yàlla li mu sàkk moo koy xamle tadaliki ni samaawun asamaan xad xawat sos làq na ab raajan ay ngunu am nañu tudde buroo ji samaa yi ni ki wa samaa yi daatil buroo ji min fawqi ardin ci kaw suuf xad xawat sos làq na af jaajan ay mbedd wa ab xurun ak ay géej xadisi tawat yoo xam làq nañu am waajan ay duus wama sama in ak ndoxum asamaan mun zalul mu di muñ wàcce sajjaajan mbir mu ñu ak yolaa kon ne boo seetloo asamaan si ak ngunu yi nekk ci asamaan nga xool suuf si ak mbedd yeeg doj yeeg li ci nekk ci biir suuf nga xool géej yi ak seeni duus nga xool ndox mi wàcc bàyyi ko ci asamaan di sottibu yépp daal taddullu danañu tegtal kulla zi nabahatin képp ki boroomu yeewu basirin kuy aji gis xatxan ci lu dog xalaa baaril bariyati ci aji bind bindeefi alqadir mi aji attan yéen yimb la tuddal ak yi nga xam ne kenn tudd ko tam yu bare bare bare yu yàlla sàkk yépp rek day wane ne yàlla lu ama am la lu ama am la lu mat a gëm la te weetal ko faslun li ab dog la fil malaayikati ci malaayika yi xaalihim yàlla na doole nekk ci ñoom assalaamu dooli woolu dagam jeexal nag yàlla parce que borom ne kullun amana billahi da caa teg wa malaikati yi ba tey kon ci téere bi malaaka yi lañ ci teg amal malaikatu daal malaaka yi fal imaanu gëm bihim ci ñoom huwa moom at tasdiqu mooy dëggal ga wal iqaanu ak wóolu bi annahum ci naka ñoom la shakk amul benn sikki sàkk ne moo joodoona ñu am lañu suma maasoo moona topp ñu ñu musal lañu mina dunoo bi ci ay bakkaar malaaka moom daa am ñu leen daan jaamu leen jàppe doomi yàlla ak yu demee noonu su borom nag leeral ne malaak malaaka ay mbindeefam lañ yoo xam ne moo leen sàkk am nañ bu wér a wér te itam ñu leen yàlla binde ñoom mënuñoo def bakkaar topp ndigal rek lañ man waaye ci leen yàlla binde mënuñoo mooy def lu yàlla bëggut ni yàlla binde nag doomi aadama ak jinne moom mën nañoo mooy mën nañoo topp waaye malaak ni ko yàlla binde moom topp képp la man topp képp la man mënta mooy wa annahum ak naka ñoom mutaharoona ñu ñu laabal lañu laa yataxawatoona duñu xayta wala yaboloona te duñu saw lay soo déet ñoom dukooran ñu di ay góor laa déedéet wala xum te déet ñoom yàkkuloona ñuy lekk wala inaasan te duñu ay jigéen wala laa déedéet wala xum te déet ñoom yashraboona ñuy naan nee malaaka kenn du wax ne góor la mbaa jigéen la déedéet malaaka du góor du jigéen amul góor a jigéen daal ma malaaka amul góor a jigéen te malaaka du lekk du naan dagam du lekku naan nag moo tax du xayta du saw amul ñandax it mbaa dara lu koy taqal maanaam malaaka ni ko yàlla bind dafa set wecc wecc wecc rek ba li fi nekk hum ñoom xibaadun ay jaam lañu mukramoona ñu di ñu jaral kulluhum képp ci ñoom wala yaxsoon te duñu mooy arraba buur ba maa amarahum lam leen digal dañuy ay jaam yu yàlla teral ñoom ñëpp te ñoom ñëpp kenn du ci mooy yàlla li leen digal daal ñu def ko waaye mooy moom na leen yàlla binde moo tax mënuñoo mooy ci topp rek digal lañ man wa annahu ak naka ñoom xalaqahum bind na leen binde na leen rabbul bashari borom mbindeef yi min nuurihi ca leeram nga fa xaala foohum te ñu wutanteeg ñoom fi suwari ci ay melo doomi aadama suñu borom la ko binde ci suuf jinne mu binde ko ci sawara waaye malaaka yi moom suñu borom mi ngi leen sàkke ci leeram moo tax nag ñu set wecc wutanteeg doomi aadama yi lool wutanteeg jinne yi lool lool taamuha seenu ñam at taqdiisu moo di sellal nga wa sharaabu naan nga idamatu tasbihi moy saxal sabal ga la tartabu bu len sikki sakka na malaaka yi seenu lekk mooy rek saxoo sellal seen boroom seenu naan ba tey mooy saxoo sabal yàlla seen boroom nga xam ne dañuy def ci jaamu yàlla nit ki sabal gi day jàppale ci ñoom lool duñ ci yëg dara mi ngi mel yow doomi aadama ni ngay noyyee rek ci sa sagot doo ci yëg dara du metti ci yow noonu la jaamu yàlla mel ci ñoom malaaka yi wa minhum bokk na ci ñoom man ñoo xam ne nii wajaba war na al imaanu gëm ga bihim ci ñoom xala tafsili ci kaw teqale yaa shubbaanu yéen waxambaane yi am na ci malaaka yi ay malaaka yoo xam ne da nga leen war a gëm ci ràññeele mooy xam seeni tur jàpp ne ay malaaka lañu boo weesoo ñooñu nag boo ja boo gëmee rek na yàlla sàkk na yeneen malaaka rek mu doy xaadaduhum seenu blim xasharatun fukk la jibrilu mooy jibril tumata mikailu topp mikail israfilu ak israfil wa ba'da haula'i nekk na ci gannaaw ñi xasrailu xasrail malikuhum ak seenu malik ridwanuna ak sunum ridwan alkafilu mi aj yore cabi ajana raqibuhum ak seenum raqib xatiiduhum ak seenum xatiid wa munkarun ak munkar ma an nakiir ànd ak nakiir kulluhum képp ci ñoom mu tamirun aji topp ndigal la yana malaaka yi nga war a gëm ci grañeel mooy fukk yi mu wàññi jibril mikail israfil azrail muy ñeent nga boole ci malik dana wax lim doon muy bëkk néegu sawara muy juróom nga boole ci ridwaan muy bëkk néegu ajana muy juróom benn nga boole ci raqib ak xatiit dana wax seen mbir ñaar lañ ak juróom benn yow mu juróom ñett nga boole ci munkar ak nakiir muy fukk fukk ñooñu daal ñoom war a gëm ci grañeel mu wax nag la leen yàlla féetale kenn ku ci ne qussa jagleleef na jabrailu jibril bi waxyillahi ci waxyu yàlla ga jibril moom la yàlla féetale bu dee waxyu ku mu nar a yónni moom jibril la yebal mu andi waxyu ga وقص جغل لفنا ميكائيل ميكائيل بالمطر تتوبة ميكائيل مم لا يالا فيتال ميروم توبي ويقصب لنا بند الرقيب رقيب والعتيد اك عتيد جملة ما مبولم لغا خمني يأتي لنا ديكي به تي موم الحبيب جامي يالا الرقيب اك العتيد ñoom la yàlla booleeg mboolem jaam ñi kenn ku ci nekk ñoom ñooy bind la ngay jëf ci lu baax ak la ngay jëf ci safaan ba ngir bu ëllëgee ñu mën caa sukkandiku dal ci àtte ndax am yàlla moom ñu toog fa di bind ak ñàkk faa toog di bind ñooyam ci moom lépp lay xam waaye nag boo xasee xam ne am na yaari malaaka yu ànd yow di bind li ngay wax ak def day tax rek boo ko day bàyyi xel nga jajju yu bare bari nga di ko moytu kon raqib ak xatiit ñooy ñaari malaaka yi nga xam ne ñooy bind li jaam yàlla yi def muy nag lu baax muy safaan ba wannaf ko walga fi suuri ca bufta ba li israfil ñeel na israfil balaa ko ñuy wax israfil moom la yàlla féetale wal bufta bi nga xam ne dana ko digal mu wal ko ndax mu tukkal àdduna lépp lu amoon roo dee buñ ci tegee ñun fukki at mu digalaat ko mu wal ko mu waluk dekkal gi bu ko defee la amoon roo nag dekki wal xabdu ngëb ga li rooxi ñeel ruuga li xasrail ñeel na xasrail malaaka mañu wax xasraayil moo féetewoo ñëpp ruu yi maanaam koo xam ne yàlla jox nañ ko digal mu jël ruuxam mu faatu rek mu daal di dem jël ruuga wa munkarul munkar maa nakiirin ànd ak nakiir ya tiyaani danañu dikkal almayta néew ba ba da mawti yi ci gannaaw faatoom nga wa yes alaani te danañu ko laaj xan xaddi tawxiid walis dëgg-dëgg tawxiid sawaawun way jamoo la oq bira moo xam suuleef na ko ci bàmmeel aw lam yoq bara wala suuleefu ko ci bàmmeel nee na munkar ak nakiir yaari malaaka la ñoo xam ne ñoom la yàlla féetale laajum bàmmeel mi nga xam ne kuñ suul ci bàmmeel ak kuñ suul ci bàmmeel ñooyee moo buñ la waree laaj rek moom daañu la laaj dañuy laaj nag néew ba kan moo doon boroomam jën diina la nekkoon kan moo doon ab yonanteem ko hadis ba waxe nak bu de ko gëmal yalla yalla may ko mu tontu ne allahu rabbi wa muhammadu nabiyyi wal islaamu diini daldi leeral ne yàlla moo doon sama boroom te mooy sama boroom ba tey muhammad mooy ndaw li yàlla yónni woon ci nun te àgg te ma gëm ko topp ko diine jëm andi woon te mooy lislaam ca la nekkoon bu ko defee ñu yaatalal ko nag bàmmeelam mu yaatu lool ba fu bëtam yam mu nekk ci xéewal ak jàmm ba noppi ñu wan ko kër ga mu war a jëm nag ca àjjana bu ëllëgee bu dee yéefar bu ne ko addis ba waxee nag moom buñ ko laajee yooyu day wax rek xawma xawma jooju nag dañ ko ci dóor dóor yoo xam ne nee nañu yoox yam cay yooxu moom yéefar bi lépp koy dégg ba mu des nit ak jinne nit ak jinne rek ñoo dul dégg yoox yooyu gis lu ak yi lati sibaaxi kem lekk yi ti ndeg mente ya wal xariixi ak ajlab waka ak yi lati tuyóori ak niki lekk yi ti njanaaw ya wal xariixi ak ajlak xam nga dane woon ku ñu war a laaj rek moom daañu la laaj moo xam dañ laa suul ci bàmmeel moo xam suuluñu ko ci bàmmeel niki nim ko misaale ko aw rab lekk mbaa ku lakk ci ndox gisuñu ko ba koy suul mbaa ku lakk ba xam def dóom mbaa ku tan yi lekk mbaa beneen janaaw lekk ko ñoo ci yemoo du ca dara moom yàlla moom lu mu nar rek mu yomb te ñëpp kuñ ci war a laaj daañu la laaj xumaa ñoom ñaar yej yi aani danañu dikk wayu ci lisaani yi dañu koy dicc fil xabri ci bàmmeel ba inkaana ndem am na wayes alaani yi te danañu ko laaj nee na bu fekkee ne kooko ci bàmmeel la nekk yaari malaaka dañu ñëw dij ko ba mu toog ñu laaj ko nag li ma waxoon léegi ne moom lañ koy laaj kay fiyatu suaali melaw laaj ga duuna lab sin ci dul lant antur jaxa moo di bu dee fi delloo arruuxu ruuga li jismil insi jëm ci yaramu nit ka nee na laajte bi mi ngi tàmbalee ci gannaaw buñ ko delloo ruuga moom jëmm ji faatu woon kem loo xam ne na mën a waxante mën a tontu lañ koy laaj ba tax mu ne gannaaw buñ ko delloo ruuga lañ koy door a tàmbalee laaj wal maytu néew ba min bax dim sirafin ci gannaaw wëlbatiku yasmaaw dana dégg xaraxa nixaalihim fëgg seen dàll ya itama tuqraw ndeem def na leen fëgg nee na sax borom bàmmeel bi moom buñ ko suulee bay dem rek bu ñu wàññi ko tàmbali sol seen dàll dana daal di fekk ñu delloo ko ruuga ñu dekkal ko ba muy dégg sax ñu ko doon suul dem nga ñu dem aka sol seeni dàll ak yëngatu sawtaahuma seen yaari kàddu yi ñoom ñaar ka mis li raadin mi ngi mel ni ak dënnu xaasifin guy aji fàq xaynaahuma seen ñaari bët ñi ka mis li baraxin mi ngi mel ni kem ak melxat xaatifin guy aji fëkk nee na ñaari malaaka yooyu dañoo njàng lool nag buñ dee wax seen kàddu yi te xumb xumb ba mel ne dënnu asamaan gu fàq seen ñaari bët yi buñ dee xool day rayi rayi mel ni melxat gu am doole googu yaxruju dana génne min fammayhima ci seen yaari gémmiñ yi mislu sharari kem ay ferñeent inda muxaatabati masulil bashari fa wàqante ka ñi laaj ci mbindeef yi ne buñ dee laaj kenn ci bàmmeelam buñ dee wax da ngay seen seen gémmiñ yi mel ne ay ferñeent moo ci génne laysaa déet ñoom ñaar yushabihaani ñu nuróonteeg jinnan jinne aw malakan wala malaka ma shiddati dayxi ànd ak taruk xat ga wa shiddatil xalaki ak taruk lëndëm ga nee na xoolal rek xat gi bàmmeel xat ak lëndëm ga mu lëndëm boole ci na ñaari malaaka yi nañu ñàngee nga xam ne dañoo njàng-njàng ba nuróowu ñoog jenn jinne nuróowu ñoog menn malaaka wa kullu xalxin mépp mbindeef xadd xaafa ragal na min xumaaj ñoom ñaar xattal malaayikatu ba malaayika yi sax laa xilaafan amul benn wuute nee na mbindeef yépp leen ragal ba seen moroom malaayka yi sax dañ leen ragal wa kullu xalxin mépp mbindeef yastaitu dana sàkku muslu min humaaj ñoom ñaar wa aha dana te yàlla na nu musal min humaaj ñoom ñaar rabbu samaay borom asamaan nee na mbindeef yépp ay ñaan yàlla musal leen ci yaari malaayka yi muy ñaan nag yàlla na nu yàlla musal ci ñoom ñaar rabbatanaa yàlla na nu saxal allahu yàlla xalal imaani ci gëm nga hinda firaaqi ruuxi fa teqalikoo ruuga lil jismaani ñeel yaram wa wa ba'dahu ak ci gannaawam ba hinda su'aali fa laajug yaari malaaka yooyu wal xiyaami ak taxawaay bis penc ilaa duxuuli naa ba sunug dugg xadan ci ëllëg daara salaami kërug mucc ga muy kërug ajana dafa ñaan yàlla saxal nu ci gëm fu ma ni toll moo xam jamonoy roog yi tàqaliko yaram mi la moo xam gannaaw bala bu ñuy laaj ca bàmmeel moo xam gannaaw bala fa dalee ba taxawaay bis penc ba bañ dugg àjjana rek yal na nu yàlla saxal ci gëm googule amin malikuha seenu malik alxaasinu mooy aji yore ceebi lin ñiraani ñeel sawara ya ridwanuna sum ridwan alxaasinu mooy aji yore ceebi lil jinaani ñeel ajana ya yena malik malaaka la moo xam ne moom la yàlla dénk ceebi sawara ridwan ridwan nag mooy malaaka mi yàlla dénk ceebi ajana ya fukk ñaangoog waxiruhum kudul ñoom nag wajaba war na imaanun gëm bihim ci ñoom laakin waaye xalal ijmaali ci kaw ba bëstal mooy ci kaw gàttal duuna may sihim ci dul seenu ràññeele nee na ñii rek nga war a gëm gëmuk teqale waaye ñu bokkute ñoom ci malaaka yi boo gëmee ne yàlla sàkk ne yeneen malaaka rek nga daal doy du aajo ngay jéem a xam seeni tur ak di jéem a ràññee dara dara ca loola wastas ni na nga seetee mi man ci ña nga xam ne yus alwoona def na leen laaj al ambiya yonante ya tumal malaayikata topp malaaka ya fii maa ca la nga xam ne ruuy ya nett leef na ko wa shuhada ak way deene ci jihaar laajte moom laaj ci bàmmeel nag daa am ñoo xam ne bokkuñu ja kenn du leen ca boole kenn du leen laaj yonante yépp ñoo ci yemoo amul benn yonante boo xam ne des na ko laaj ci bàmmeel ba tey malaaka amul menn malaaka mu ñuy laaj ñi dee ci jihaar itam noonu des laaj kenn dara dara wa kasaaliki nii asiddiixoona dëgg laa kon ya asiddiiq moom lu jafe-jafe la maanaam daraja ju màgg la itam koo xam ne ab yonent daa ñëw mu daal di koy dëggalal te gëm ko gëm goo xam ne gu ràññiku la ni abubakar asiddiiq meloon waaw mooy ñi gëm yonante yi te dëggal gëm ga ba ràññiku ca ràññiku goo xam ne neexuñu caa jot ñooñu nag kenn ku ci def ko ci faatu itam des la laaj ci bàmmeel wa min hum bokk na ci ñoom al ablahu aji gàtt xel tumal majnun topp ab dof maanaam ab dof kenn du ko laaj ci bàmmeel koo xam ne itam dofut waaye dafa yemba di ba xelam gàtt gàtt ba daanaka xamul dara moo ko dof ñoo yemoo moom it kenn du ko laaj ci bàmmeel wa man ak nga xam ne yu laa si mu dana taqoo tabaaraka tabaaraka koo xam ne guddi gu ne mu jàng sóorat mulki muy tabaaraka moom itam deesu ko laaj ci bàmmeel wa man ak koo xam ne mawtuwoo faatoom nga xala na feeñ na fii zamani taaxoon ci jamonoy mbas pest wala mbas xeeti jàngoro yi wàlle loo xam ne feeñ na ci béréb ab julit nag loolee dal ko te moom mu gëm yàlla sàkku tuyaaba rek ba faatu ca noonee kenn du ko laaj ci bàmmeel wa man xara ak ku jàng al ixlaasa saaril ixlaas fil maradi fil maradi ca tawat ca jiiman ñetti yoon wa maatate mu faatu fii ci moom la ataakum yàlla bu mu leen dikkal ar rajimu seytaane ma ñu jam la ataakum rajim moom ñaan la moom daane la way wi ku tawat ci biir tawat ja nag mu fexe ba jàng xul huwallahu yetti yoon faatoo ci tawat joojee kenn du ko laaj ci bàmmeel wa minhu moo bokk na ci ñoom man koo xam ne maata faatu na yowmal jumuhati ci bëccëgub ajuma aw laylatal jumuhati wala ci guddi ajuma niltum yàlla na ngeen am asaxa te yaatu wërsëg te tey niltumu saxa daaneel way la daa wax ni ku faatu bëccëgu ajjuma wala mu faatu guddi ajjuma ba tey kenn du ko laaj ci bàmmeel ba tey sëñ bi waxan ne ku mokkal jaawartu bil furqaani kenn du la laaj ci bàmmeel ba tey siiw nañu wax ne kuñ ko sóolaale ba tey ci bàmmeel kenn du la laaj waaye nag mokkal gi moom moom moo ko waxan net li bu wóor a wóor boo xam ne ñëw na ci irwaa un nadim waxan ko naar net li bu wér la moom faslu li ab dog la fil imaani ci gëm bil kutubi ca téere al munazzalati ya diñu wàcce xal la mënaa yal nanu xamal allahu yàlla taxala kawe na asraaraha seeni mbóot bi jaahi sayidna daraja sunu sang muhammadin muhammad sallallahu alayhi wa sallam day dugg ci nit ñi gëme nag téere yi ndegam weesu nga yàlla weesu malaaka yi kon téere moo ci topp ndax bas na boroom ne kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi la ca teg kon nag téere yi naka lañ koy gëmee moom lay bëgg a wax mu ñaan yàlla xamal nu secret yi nekk ci téere yooyee ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imaanukum seenu gëm bil kutubi ca téere ya al munazzalati ya duñu wàcce tasdiqukum mooy seenu dëggal bi annaha ci naka ñoom munazzalatu luñu wàcce lañu min rabbikum tukkee ci seen boroom wa annama ak naka la nga xam ne fiiha nekk na ci ñoom jamihan mboole seen xàqun dëgg la yadullukum boog da leen tegtal ala qawlil badihi ci waxi aji fent mi ne fi neena gëm téere yi moom mooy nga gëm ne wàcce téere yi ci boppam lu am am la tayit mboolem la nekk ci biir téere ya dëgg la gu bàyyi ko fa yàlla yàlla bëgg koo jottali ay mbindeefam jaare la ko nag ci ñooñee mu yónnee kon na ngay gëm wàcce gi gëm ni itam lañ wàcce dëgg la wal ba'du lenn ci téere yi unsi la wàcceef na ko fil alwaahi ci ay alwa kama ba'duha nit nga xam ne lenn ci ñoom sama yëkkatikoo na bi alsunil amlaaki ci làmme ñu malaaka ya na am na ci téere yoo xam ne dañ ko wàcce mu nekk ci alwa ñu bind ko ca mel ni tawreet bi ñu wàccee ci Musa alayhi salaam moom ay alwa la ñu wàcce ko ci moom ñu di ko jàng yenn yi téere yi des nag moom nekkutoon ay téere yu ñu mën a jàpp di ko jàng jibril moo daa ñëw di ko sax yonante ba gannaaw ba ñu farlu ci bind ko nag ba mën a am yax ba di ko yokkalante mu ne alxuraan ji dañ ko daan sax yonante bi yonante bi sàkk ñoo xam ñoo koy bindal ñu mujj na ñu boole ko nag ba mu def benn téere nekk ci wenn feggu waaw waxadduhaa seenub lim xadun téeméer la ak ñeent bi daalin ci daal muhammadin guddi guñ neenal wal xaafi ak xaaf indal xulamaa yi fa way xam ne alkumbali ña di way mat li mu téere yi yàlla masa wàcce ci ay yonanteem xaaf ak daal la xaaf mooy téeméer daal mooy ñeent kon muy téeméer ak ñeent fa un si dal wàcceef na yaawun fukk xalaa abinaa ci sunu baay te mooy aadama suma xam sunu topp juróom fukk xalaa si isa ci si isa ibnihi kay doomam suma laamun topp fanweer xalaa idrisa ci idris wa yaawun ak fukk xoqi la bopp xelloof na ko xalaa xalilihi ci xaritam ba as saadixi kay aji dëggal yaana sun maam aadama amoon na fukki téere doom ji ñu wax ci isa nga dégg ñu leen wax soose tur woowu lañ jël ci isa mooy soose yi ngay dégg soose njaay soose gay noonu ci isa moomu doomi aadama la wàccoon nañ yàlla wàcc woon na ci moom juróom fukki téere idris amoon na fanweer xaritu bi yàlla bi ibrahim amoon na fukk dina boo ko boolee téeméer lay doon ndax fukk ci aadama juróom fukk ci doomam ci isa juróom benn fukk lay doon fanweer ci idris mu juróom ñeen fukk fukk ci xaritu bi yàlla ibrahim mu daal doon téeméer ba tax mu ne fa haasihi lii alxaafu mooy arafu xaaf wa maanaam mooy téeméer ba wa xarfu daali arafu daal wa nag moom yadharu dana feeñ aram suufoo junjëm ba xalaata waa liñ ci toftaloo arafu daal yi nag moom nee na moom moom la ñu bëgg a andi waxal la turi téere ya moom ràññi ko fi yow ndax yee moom waxuñu woon turi téere yi waaye yent yi moom dangay far xamaali seeni tur bu baax a baax tawraatuha tawreet seen xadix tawaaxa làq na ko muusa muusa kamax tawaa naka làqe xiisa xiisa al injila injil xàqan ci dëgg-dëgg tuma sabooru topp saboor baana feeñ na li daawuda ñeel daawud suma xawaa topp làq sayduna sunu sang alfurqaana alfurqaan te mooy alquran ji rek sunu sang bi nag muhammadun mooy muhammad afdalu xalqillaahi mi gën ci mbindeef yàlla yi bilaa dara dul njëru benn déng-déngi wala su ci baaxim du caageenu lënt alayhi yàlla na doolee nekk ci moom min rabbil waraa tukkee ci boorum mbindeef yi xayru salaatin gën ci dolli teral suma alayhim topp yàlla nekk ci ñoom ñëpp itam waxalaa kulil hudaati ak ci mboolem way jubal ña wala ak ci mboolem way jub ña dafa wax ne ñeen téere yi moom benn bi moo tudd at tawraatu yàlla wàcc woon ko ci Muusa alayhi salaam benn bi tudd al injilu yàlla wàcc woon ko ci Isa alayhi salaam benn ba tudd azaboru yàlla wàcc woon ko ci Daawud alayhi salaam bi ci mujj nag mooy alquran ji nga amee koy wooy alfurqaan alquran al zikrul hakim at tanzil al mushaf alkaamil mu bari ay tur lool moom mooy bi wàccee ci yonante bi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam muhammad dane moo gën ci mbindeef yàlla yi amul benn déng-déng amul werante yal na ko yàlla doole saxal teral moom mboolem mbokk yonante bi yépp ak mboolem ña doon jéem a roy ci ñoom di jéem a jubal waxat di jaraa daw na ak tafsilu teqale ga fi imaani ci gëm nga ay doon ba tey di xaaj ñoom téere yi hind dawil xirfaani fa waroom xam nga ba tey nee na ni nga waxoon ci malaaka yi am ci ñoo war a gëm ci ràññeel jàpp ne ay malaaka lañ jàpp seeni tur ràññeel leen ci gëm ba tey fii téere yi noonu la demee am na ñeenti téere yoo xam ne mooy yi nga weesu léegi day aajowoo nga xam seeni tur ràññeel leen jàpp ne ay téere lañ yu yàlla wàcce woon gannaaw ba nag boo jàppee ne yàlla wàcce woon yeneen téeméeri téere rek yu bokk te ñeent yooyu rek mu daal doy téeméer boobu mu du aajo ngay jéem a xam tur yi ak dara dara motax mu na fa wajaba warna at tafsilu taqale ga fi dali ci dal ga fi dali ci ñent ña faqat dong ñent téré yi rek muy at tawratu al injilu az zaburu al furqanu ñent fi rek lañ wara gëm ci rañal ci mbolum téré la fi ba wax yi du ci ak yeen ci way dess ya ya dess mom du aajo nga gëm leen gëmu rañal faltu nabbi na nga yee za ghalatin borom njumte yeexal ka yewut nek ci njumte ndax mu genn ci njumte la loolu daaneel way la wa kullu man képp koo xam ne ankara weddina shay an mbir xad sabata moom sax na min ad darurati ci lu péng la maanaam ci lu fés la allati la nga xam ne xadon li mat xameef na ko fa kaafirun kon ab yéefara la nee na képp koo xam ne moom daa wedd ci lislaam loo xam ne daa leer nañ ñëpp xam ne ci la nee na weddi warug julli wala warug asaka wala waru ramadan ak yu demee noonu dañuy jàpp ne kon moom daa weddi bu fekkee nekkoon bu fekkee nekkoon na ci islam itam murtat na dañ koy wax mu tuub gëm delluwaat ci lislaam su ko nanguwut matee ñetti fan rek ñu rey ko amal lët yi ndaal la nga xam ne nag lam tooxal la man xameefu ko daruratan muy lu fés péng fa mënintamaa ko askanu li nukkuri xaaj